fa lahu ma salafa wa amruhu ila allah wa man aada fa ulaika asxaabu nnaari hum fiha xaalidun yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibu kulla kafarin asim إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون jërëjëf sëñ Mouhamad ñaareel bi laaj ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم اعمى ulaayika yunaadawna min makaanin ba'iid wa laqad aataynaa muusaa al-kitaaba faxtulifa fiihi wa lawlaa kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya baynahum wa innahum la fii shakkin minhu muriib man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa'alayhaa wa maa rabbuka bi zallaamin lil-'abiid ilayhi yuraddu 'ilmu as-saa'ati wa maa taxruju min samaraatin min akmaamihaa wa maa taxmilu min unsaa wa laa tad'u illaa bi'ilmihi wa yawma yunaadiihim ayna shurakaa'ii qaaluu aadannaaka maa minnaa min shahiid wa dalla 'anhum maa kaanuu yad'uuna min qablu wa dannuu maa lahum min mahiis laa yas'amu al-insaanu min du'aa al-khayri wa in massahu ash-sharru fa ya'uusun qanuut wa la in adaqnaahu allahu rahmatan minna min ba'di ma darra masathu la yaquluna hadha li wa ma adunnu as-saa'ata qaa'imatan wa la in raja'tu ila rabbi inna li 'indahu la al-husna jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamed ah masha allah masha allah allahu akbar allahu akbar masha allah masha allah kon yàlla na leen suñu borom fay Cheikh Bachir mën ngaa yégal Mbacke Sylla waaw kon Serigne Mbacke Sylla mën ngaa ñëw ñi ñu war a décorer nga xam ne moom lañu joxoon mu coordonné leen mu bokk ci candidat yi nga xam dañoo war a décorer suñ xaadim moo suñu Abdou mi ngi fi kon ñu may jury bi ñu concerté wu xool seen résultat nu muy demee suñu mbàkk la bismillah ci bu gaaw rek ñu décorer candidat yi ndax jotaay bi day mel ni fi mu ne mat na daal waaw incha allahu